Seni var ya, Ini mekan. Ini banyak lepp bëgg xam. Abonné wu ci seen YouTube bu Ndiamé TV bëssal na station bi ñu tabal la fofu nga mëna abonné wu ndax ngay mëna am vidéo yi ñu duggal chaque jour. nga bu am solo. Laaj nga bu mooy laaj nga laaj bu naqaree leeral ndax wax ci loo fekkewut ak ngëm ngaa jiital waaye li tax ñun sang ñaan yebal si ñu ñëw te def ko fi ay at ci maam moor mi maam maam am ma kii nañ ko fi ay at waaye ba ñu njëkkee ndaamaatu la kon booba ñëwaguñ fi léegi nag li ñu daan indi mooy Maam Mor Khouradia Cissé moom la ñu bari wax ne dafa tudd guddi bi yàlla boole ko suñ tubaa waaye xamee ko woon ndax dafa ne ab nit bu tuutee nale mun a jël ci man lim jël ci man kon booba xameegul ko mu dem ba mu yàgg nag mu ne loola nga xam ne moom la jël ci moom nag moom la soxlaat taarix bi joor ma di ko soo pare am na fi ne am na ñoo xam ne dem nañ ba muy duggi Dakar sax ñu ne wala jaay fetel ba door a wëññeeku si mais li ñu indi mooy dafa ñëw ci sëñ Tuubaa tombe maam Mor Xoroja Siise laa la wax de moo ñëw bu yéeg ci sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ne ko ñëw nga mu ne ko ñëw na ko ñëw nga mu ne ko waaw mu ne ko am nga yitte de ci koo xamante ne xëy na bu fekkente ne saa yi da ngay door a gisee moom waaye yàlla dugalaat ma maam Amadou Fa Jamal Ñang mii doonoon seex ci seexu sëñ Tuubaa yi mooy nu may def rek sëñ Tuubaa ko ñëw nga mu ko ñëw na mu ne ñëw nga mu ne ko am ngay tëdd tombe nag Amadou Fa diggee siyaare si nag tombe moom itamit mu matal mu yëkkatiwaat Amadou Fa Diamagnane mu yëkkati loxo maam Mor Khoreja Cissé tegaat ko ci loxo Amadou Fa Diamagnane ni ko lii de mbuus la wulil ma ko ba mu nooy nga yot ma ko ma sol ci ci ma tas sole léegi nag ñëw na fii ci kër ñang gii am na ñoo xam ne nee nañ am na fi ay nangam naa ca yem taarix la waaye daal biire na fi maam nag xam na ne li ko sëñ Tuubaa santoon def na ko mat na moom maam Mor Xoreja mu ànd ak moom Amadou Fadja Mañang ànd ak maam Mor Xoreja dellu ji ko sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa gindi ko dal ko yiwi yebalaat ko Saalum ca lañ wax taarix man du ma cee nangoo sori parce que loo fekkee wóor dama ngeem rek moo la yóbbu waaye ka fekkee gis moo gën a wóor le léegi nag bi mu demee mu dem Daaru Salaam mun na ko boo demee am na benn soto boo xam ne mu nga ca àll ba jox ko mandarga soto ba jox ko mandarga banqaas boo xamante ne banqaas baa ngi jublu penku am lu ko teg talaat ne boo demee jaroon soto booba danga nga fekk banqaas booba nangam ne ca mu ne jàppal ne foofaay mooy sa penc boo ko jotee laxas ko maamoor noonu la ko yàlla digtale moom itamit mu dugg ci àll bi ba yàlla woon ko soto bi mu gisaat it bànqaas bi mu ko waxoon ma jublu penku moom itamit mu daal di ba bëtam teg ko ca la xam moom la ko sëñ Tuubaa digaloon moom it ca la la penc ba moo tax muy wax ne furu Tuubaa gennoo daaru yi furu Tuubaa gennoo daaru te lu nit di wut daaru boo ñëwee fi fekk ko ci ndigalu sëñ la sëñ ci penc moomu boo demee foofa penc mi soto bi am na teen bu ko feetee nii am na bab bu ko feetee nii léegi daanaka defatuñ ko penc nag waaye moo nekkoon penc maam Mor Khoreja Cissé ci ndigalam Serigne Touba waaye lim fi jëlee ba ñu ne ñuy ñëw mooy xam yàlla xam yonun Touba xam nu ñuy jaamoo yàlla loola nag da ko bëggaloon Cheikh Moussa Cissé maay doomam. tax mu delloo si Cheikh Moussa te bindaa naam na ñu ne daa bindoon lettre jox ko won ko ne ko kii de fi mu ne nii yaama doy ci moom ndax li ma ko yee li ma ko bëggal xeeb naa ci sama léegi loolaa tax Sëñ Tuubaa it jokkuwaatoon ci Sëriñ Tuubaa ngir mu dee jot xam-xam waaye Sëñ Tuubaa Cheikh Moussa nag lam daan wax mooy man dama laxasaay ci suma baay di wut ngërëmal yàlla waaye booba Birmi ni mu ni mede demee nonu na gerem na la rek la woon ci loo xam ne ngay liggéey ci sa ak sa alal nga di ko koy jox mu ne waaye booba sirin dama lan tu sëriñ lantu moom sa loolu waaye nag bi mbir mi mattee bi mbir mi mattee ira alaaji Ibrahima Ñas moo wàcc nettalikat yaay tamit tey tamit am na loo xam ne dama jaaboolewul sama bopp rek waaye am na lu ma ci mu ñëw bu ci buntu kër gi ne drapeau islam de tey mën la ko yàlla jox yëkkati naa ko cokko yàlla bindu ku ne amel naa la njëriñ moo tax nag ñu faroon di wax ne eh, eh, jamono du am ñaar ñaar mm, mm, jamono mm, borom ñaari borom jamono jërëjëf booba alaaji Ibrahima Niass booba mooy borom jamono léegi ne boobu moom itamit xam na ne man am na lu may xëy mbaa aay bii dana ko mos a moom wut na ko ci fu ne laajte na ci lu ne dem na ba mu yàgg sax mu ne sax dem naa ci peetaawkat diggante gi nag yàlla defal na ko benn bés boo xam ne dañ daan lotori guy ga ca kuus mu ne waaye moo ko gañe mu am kum ko nettali mu ne ko lu mu yëg-yëg da nga doon borom jamono mu jàppaar loolu téye loolu yëpp ci ay wut waaye nag bi yëf yi ñoree ba ñor nag a ah, wax dëgg yàlla yenn jëruma ko topp parce que yooyu moom ay doomam a ko waaye daal li ñu indi wi daal mooy yow Cheikh Moussa daal moo jël sa nga ñaan xamal ko yàlla sa nga ñaan xamal ñu yàlla da caa nag ci yem ci tur ndax borom ndaw dama ne dama koy xamle ci tour yi xamle ko ci jëm ji xamle ko ci melo gi kon da jagan muy tour na la aw rabi rek ne def lay won yaay bu lu mu ne yaay gisal ta bo bone gis na te mo say lol wax mu ne may de kala doy muy kala ne sarax ka nga tane aadiya nag koo xam ne na la yobule ci yàlla mu wóor la ne bi yàlla nga ne yalla ngi ni ne kooko hey wax oh, non la ko kon mu ngay jàngale waxan nañ ci jamono pour leeralal wa jamono ne ki dut guy naxé mu ne man dama xëy di liir teeni da ngeen xëy di liir te danaa xëy di niw teeni da ngeen xëy di niw li yëpp da yété bi jamono yéwo nak ci lañ ko laaj té sang nak ci la ya mu bay ko mbuda dem fekki ko daaru laaj ko xam yàlla mu xamal ko yàlla muy dem di ñëw maa ngi cee dégg Cheikh Diagne sax ndeysaan fan ni mu cee seede seede yu mat yoo xamante ne bi mooy bàyyi ko mbudaay di dem daaru booba jardin Cheikh mu baa nga fa mu ne moom bokkoon na ca ñi nga xamante ne dina ko fa daan fekk nee na ba nga xamante ne mos na ñëw sax dafa yore ñaari arrosoir mu nii mu yëkkati benn arrosoir ba jox sëñ Souley xam ne kii liggéeykat la te booba amatul benn arrosoir mu yore benn sëñ Souley jox yore benn. loolu la booba ngedd googu nga woon féetee nii ci booru xarfu ba loolu yàgg na léegi nag jëloon la sëñ Souley nag di dem di ñëw di dem di ñëw bu Cheikh Moussa xam ne kii lim soxla woon. am na ko te ma ni li ma bëggoon ci moom am naa ko ci la ko jox lijaasa ne ko demal mu daal ne leen yonantu la ab yonantu njëriñam nag ab yonent luy mission yoon yàlla mama sallallahu alaihi wasallam moy eh, ki ñu wara jëlé jëlee mi nga ne moy kalifa kalifa qadim rasul bi mo ne man kii moy su man jawrinam la ci tol am de en ci nak non la doone jawrin ci Cheikh Moussa fi liggéeyu tool bi kooka nak moo jëlaat yi tamit ci ngoram ne léegi nag gannaaw nii la te magal gi defeetuñu ko daaru ndax Cheikh Alaaji Keeba ne na delloo ji leen ko Tuuba mu nekkoon kolëre googa dañ koy feddili si la woon diggante Mamor Xoreja ak Amadou Fadja Mañang moo ñu indi fii dégg nga wax bi loolu doy na lam doy la